wa kifayatul waaizin wal mutaisin ñu ngi woon ci buntu xaqu euh, zawji ala zawjiha maanaam aqu jëkkër ci kaw jabaram ñu amoon nañ ci ñaari mbind nag tey mooy ñetteelu mbind mi ñu war koo tëj bunt bi tey ñu ñëw ci àqu jabar yi ci kaw jëkkëram wa an aïsa radiallahu anha jëli leen si sunu ya aïsa qaalat mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa bi nee na law kaana fi farqihi ila qadimi su fekkoo ne yàlla defoon na mu jóge ci euh, euh, ci diggu boppu jëkkër ji ba ci tànk yi lan moo ci nekk sadidun dëtt donte dëtt dafa nekkoon ci boppu ku góor ki ba ci tànk yi fa laxisatuhu ndaw si mar ko ba mu jeex maa addas sukuruhu ndaw si indiwul cantu jëkkër ji maanaam loolu taxul mu mën a sant jëkkëram bu motal ndax euh, àq bi nekk seen diggante rawa hakim solo anhu sallallahu alayhi wa sallam jëlee si yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ayuma imraatin bépp jigéen aazat zawjaha bi lisaaniha bu lor jëkkëram ci làmmiñam lam yaqbalullah minha sarfan yàlla du ko nangul benn farata wala adalan xasanatan yàlla du ko nangul benn ah, naafila bu mu def xasanatan min amaliha ci ay jëf yu jëf yu baax yu mu def ci ay jëfam cey xataa turdiyahu ba mu gërëm lu jëkkër ji gërë jëkkër ji gërëm ko wa in saamat nahaara doonte dafa woor bëccëg bi wa qaamat laylaha mu taxaw guddi di julli wa ataqat riqaabu mu gorel ay jaam wa xamalat ala jiyaadi alxayl bi mu yenu ay fasu naar góor def ko ci yoonu yàlla wa kaanat awalu man yarudu naar moom mooy nekk benn kuy dugg safara parce que ay allahu akbar wa kazalika naka noonu de ar rajulu góor tamit ida kaana laha zalima su fekkee moom mooy tooñ ndaw si rek ci lu tegu ko fenn moom it moom mooy njëkk dugg safara wa qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ayyuma imraatin bépp jigéen lam tarfuq bi zawjiha boo xam ne te ah, ni ay mbiram ci jëkkëram wa hamalatuhu ala ma la yaqdiru alayhi mu koy yan ci loo xam ne attanu ko maanaam muy teg jëkkër ji lu mu attanul wa ma laa yudu ak lu mu mënul lam yuqbal minha hasanatun yàlla du ko nangul benn yiw bu mu def ci dundam wa talqa allah te ëllëg bu dajeeg yàlla wa huwa alayha xadbaan yàlla da koy mere iskay wa wa sallam ayuma imraatin bépp jigéen xarajat min bayti zawjiha min baytiha bi xayri isni zawjiha jëpp jigéen bu génni biir këru jëkkëram te fekk amul ndigal eh, isni zawjiha la fala nafaqata laha kooku kenn du ko dundal xataa yarje ba mu dellu siwaat kenn du ko jox dund ba mu dellu siwaat ayuma imraatin bépp jigéen te tayyabat boo xamante ne bi dafa def ay parfum ak ay yu yu xeeñ ci yaramam bi xayri zawjiha mu def ko nag fekk defu ko ngir jëkkëram lam tuqbal minha salaatan yàlla du ko nangul benn julli xataa taxtasilu min tibiha ba mu sangu jëlee euh, parfum boobu ci yaramam allahu akbar cey kon de jigéen yu bëri yàlla du leen nangul dara parfum moom wala taaru moom fu ñu ko defee rek dañoo génn mbedd mi du seen jëkkër de wa anhu alayhi salatu salaam salaam nee na ayuma imraatin bépp jigéen qaalat li zawjiha bu wax jëkkëram maa raaytu minka xayrun qat musumaa gis si yow lu baax loo ma defal illaa habata amalu lu dul yàlla yàq na jëfam yëpp lu mu liggéeyoon yëpp yàlla yàq na ko bés boobu hee kon dañu bëri yàqule nañu ñoom de li ñuy wax seen jëkkër li ñu ne yàq xaara de im si yoo koy amuloo yoo koy nii rek nga mel hee jigéen ñi li ñuy yàq jëkkër yi maara de im si weñ bu si tag rek dee min badri zawjana jëlee nañ ci téere bi yonent bi ah, nee na azamu naas xaqan ki gën a rëy ci nit ñi àq alal mar'ati ci jigéen moo zawjiha moo jëkkëram jëkkëram moo gën a rëy ci moom àq waay wa azamu naas ki gën a rëy ci nit ñi xaqan àq alal rajul ci kaw góor umuhu moo yaayam góor tamit yaayam moo gën a rëy ci moom rawa xaakim mu jële ko ci ana aïcha wa qala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na yastaghfiru lil mar'ati dina dina jéggalul jigéen al muti'atu jigéen bu topp li zawjiha jëkkëram lan moo koy jéggalul al picc yi njanaaw yi nekk ci kaw jaww ji dañ koy jégalool wal xeetaana filmaa yi jën yi nekk ci ndox mi dañu koy jégalool wal malaaykatu fi samaa yi malaaka ci asamaan bi dañ koy jégalool wa shamsi wal qamaru jant bi ak weer wi dañ koy jégalool maa daamat fi rida zawja fekk mu ngi nekk ci ngërëmu jëkkëram yi yëpp dañ koy jégalool allahu akbar waaye maa imraati bépp jigéen asat zawjiha boo xam ne dafa mooy jëkkëram fala fa alayha ah nekk na ci kawam laanatullahi rëbbub yàlla wa malaayka ak rëbbub nit ñi ak rëbb malaaka yi wan naas ak nit ñëpp aj mi in mboole seen ñëpp rëbb nañ ko ay waay yi maa imraatin bépp jigéen kalahat fii wajhi zawjiha bépp jigéen bu ñàngal kanamam lëndëmal ko ci kanamu jëkkëram fa hiya fii suxdillaay moom mu ngi ci merub yàlla ilaa an tudhikahu lu dul dafa dem ba jëkkër ji reetaan loo wala mu reetaan jëkkër ji wa tastardiyahu mu gërëm lu jëkkër ji mu def lu tax jëkkër ji gërëm ko loolu day ah mu ngi ci meru yàlla de te kon de jigéen ñu bëri ñu ngi ci meru yàlla waaye maa imraatin bépp jigéen xarajat bu génn min daari min daariha ci këram bi xayri isni zawja lu àndul ak ndigalu jëkkëram jëkkëram ñu waxu ko mu dem laanata hal malaayika malaayika dañ koy rëbb xataa tarja mu dellu siwaat ci kër gi ca yàlla loolu min kitaabil kabaayir jële nañ ci téere bi ñu naan kabaayir waqaalat aysa sunu yaa aysa nee na radiyallahu anha yàlla yàlla gërëm ku ne ne yaa maasara nisaay yéen mboolem jigéen ñi law taalamuuna bi haqqi azwaaji kunna alaykunna su fekkoon na xamoon ngeen seen i àqu jëkkër seen kaw la jaalatil maratu kon dana doon def jigéen min kunna ci yéen kenn dana def lan lay def tamsahu xubaaru qadamay dana dana dana fomp poussière tànku zawjiha jëkkëram bi xaddiha wajiha maanaam ci lexam lexam lay jël di fomp poussièru tànku jëkkëram ba mu jeex tag allahu akbar waaye jigéen ñi bëri duñ ko def de min kaba min kitaabil kabaari jëlee nañ ci téere bi ba tey wa qaala sallallahu salaam yonent bi nee na nisaaukum min ahlil jannati seen jigéen ñi nga xam seen jabar yi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlul janna alwaduudul lati mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy bëgg-bëggulu seen jëkkër iza azanat aw uzinat buñ leen lore wala ñoom ñu lore atan zawjiha day ñëw ci jëkkër ji maanaam bu dee jëkkër jee ko lor wala moom moo lor jëkkër ji day ñëw ci jëkkër ji euh, di koy neexal hatta tada yadaha fi kafiha ba mu jël loxoom teg ko ci kaw loxo jëkkër ji fa taqulu laha mu ne ko man de laa azuuqu xamsan hatta tarda du ma mos benn ceeb wala benn dugub wala benn lekk ba lu dul mbéte dag maa gërëm maanaam da ngaa kontaan ci man ci yàlla ñu bëri duñ ko def da ndax rëy rawaxa abu tabraani moo ko solo wa an an anas radiallahu anhu jëlee na si sidna anas xaala nee na kaana rajulun benn góor dafee nekkoon góor gi nag xaraja ila safari dafa génnoon dem ci tukki waahida ila ma imraatihi mu daal di kóllorante jëkkër jabar ji mooy allah tanzila minal minal uluwi ila suufli mu ne ko pour doo wàcc xam nga bu dee étage la mu ne ko yow doo doo doo jóge ci suuf ci kaw wàcc ci suuf loolu daal maa yow kóllorante nañ ci loolu ndaw ndaw si ne ko waaw waa ji dem tukki wa kaana abuha nekkoon na papam moom ndaw si fil asfali dafa dëkke woon ci suuf fa marida papa ji feebar fa arsalatil maratu ila rasulillahi sallallahu alayhi ndaw si daal di yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tastaazinu fi nuzuli ila abiha pour mu wàcc dem seeti ba papam bi feebar fa qaala sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko ati toppal sa ndigalu jëkkër ndax loolu ngeen waxante woon mu nekk fa fa maatat fasta fasta amarat mu ba papa ji deewee mu yónni waat ci yonent si pour mu digal ko mu wàcc dem xool dem jàll ji papam fa qaala ati zawjik yonent bi ne waate ko toppal sa ndigalu jëkkër loolu ngeen waxante woon fa dufina abuha papa ji ñi daal di koy suul gannaaw ga fa arsala rasulullah yonent bi sallallahu yónnee ilayha ci moom lan la yónnee yuxbiruha anna allaha qad gafara laha wa li abiha na ko nañ ko wax ne moom ndaw si yàlla jéggal na ko jéggal na papam li tax bi taatiha li zawjiha ngir topp gi mu topp ndigalu jëkkëram allahu akbar rawahu tabaraani moo ko solo jëme ko fil awsa waxa sallallahu sallam yonente bi nee na maa taraktu bàyyi wu ma man yonente bi bàyyi di sama gànnaaw fitna tan benn fitna hiya boobu fitna adarru ala ala rijaali mina nisaa yi fitna bu gën a mën a lor góor ñi si jigéen ñi jigéen ñi dañuy lor góor ñi rek lu ne lañ leen teg rek tabarakallah góor ñu bëri ñu ngi fi sàcc wala yu triande jigéen ñi moo tax rawahu buxaari wa muslim solo waqaala sallallahu alayhi wa waaye am na góor yu lor jëkk jigéen ñi de waaye loolu àggaguñ ci ñoom tamit seen wàll ngi ñëw waqaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na man sabara ala suu'i xulqi imraati képp ku muñ ci euh, bonu jikkoo jabaram aata allahu min al ajri yàlla dina ko jox pay ma aata ayub alayhi salaam ala bala ala balaihi li yont yi yàlla jo fa yont yont yàlla ayuba ci feebaram ba loolu lañ koy fay moom it waman sabara képp ku mu muñ ala suuy xulqihi ci bonu jikko zawjiha jëkkëram ataa allahu yàlla dina ko jox moom it mista sawaabi asiyatu bintu mazaabi li yàlla fayoon uh, tiyaabay aysa jabaru firawna ba moom la ko yàlla de fay loolu ñu ngi ko jëlee ci téere bi naan min ahyaay wa badru zawjani yàlla na yàlla may dégg ak topp ba suba ak jàmm incha allah ñu ñëw ci encore ñun tamit xuquuqu zawjati ala zawji maanaam àqu jabar ci kaw jëkkëram salaamu aleykum wa rahmatullahi